yéen kaay gi Walf Quotidien dafa xëy amal ab taxaw seetlu yaatu jëmale ko ci lu jëm ci yokkute njëgu njëgu dund gi fu gi xëy fisale yéen kaay gi leneen tamit eh, la woon bu yéen kaay gi la le peuple ne ñeenti weer moo des ci élection présidentielle yi di ñëw Macky Sall nag am na la nga xam yëkkati na ko di ko dénk gouvernement bi le la muy xaar ci ñoom mooy ñu booloo nekk benn joxante loxo di xàccandoo di dóorandoo wàccee seen bopp dem jege askan wi jéem a saafara seen tawat noonu la ko yéen kaay gi le peuple xëy fisile kon président Macky Sall daal moo ngay joxe ay dénkaane jëmale ko ci gouvernement bi le yéen kaay di l'info ne moom président Macky Sall fas yéene door campagne am ci weeru novembre yi di ñëw démb ci ndajeem xelukaay jëriñ mi doon amal xam le dana amal ay conseil des ministres délocalisés fu ci mel ne fu la ci diwaanu Kédougou Kaolack Kaffrine ba ci fu la ci diwaan Fatick noonu la ko yéene gi di révélation ne moom Amadou Ba dana fas yéene wàcc ci terrain bi ñu ngi koy séentu fu la ci diwaanu Ndar war na fa amal kon lu ñetti fan yéene gi ci loolu xëy itam loo xam yéene kaay gi xëy na ko fesal Abdoulaye mhm. te Moustapha Diagne mi nga xam ne nii ma nga nekkoon fële ci ministère de l'éducation nationale yore woon seen communication njiite réew Macky Sall dogal kon daal ko fay jëlee li nag mooy di décision bi mu jël wax ne dafay dooleel Mahammed Boun Abdallah Dionne ci élection présidentielle yi lee lu mu ñu jukkil yéen kaay gi di 24 ci Amadou Ba 2 conseil des ministres bi nga xam doon nañ amal ni ki démb ngir jëmmal lan xaar ci moom noonu la ko yéen kaay di 24 heures xëy fësal yéen kaay bi di yor yor yéen mm-hmm. ci laaj ak seen diggante a euh, ñëw moom nee na Ousmane Sonko dafa war a nekk candidat te dafa war a te dafa dafay nekk candidat noonu la ko yéen kaay gi da yor yor xëy fësal yéen kaay bi di l' évidence yéen di l' évidence président Macky Sall mu jël dogal ak di dàq képp koo xam ne daanaka entre Amadou Ba Euh, dàq googee nag na xam mu koy dax ay lenn ci ay responsable mën na koy jural ay jafe-jafe ci élection présidentielle yi ñëw mhm. te loolu sax mën naa tax mu daanu ci yéen kay noonu la ko yéen kay gi xëy fësale ki ci mujj moo ci waaye lu fekk na dàq na ko ni Ibrahima Mbodj Samba Ndiaye ak kii di Mame Boye Diawo noonu la ko yéen kay gi di la tribune ne campagne de parrainage bi fële ci diwaanu mhm. li ko waral moo di dafa am ay responsable yoo xam ñu nga fële ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo fa yabal ay nervi ci salle boobu nga xam ne Malick Sall woote woon na ñu daal couper courant ba ñu ne déet waaye ñu sànni fa ay gaz asphyxiant mhm. loolu nag xawoon a jur ak pëccoxoo ci ci salle boobu la noonu la ko yéen a kaay gii di la tribune xëy fësal yéen a di le quotidien xëyee dellu si ci li tax juge bi jël dogal kon daal di dellusiwaat Ousmane Sonko ko ci liste électorale yi de li ko waral nag mooy di dafa gis ne dogalu àtte bi dafa bëri loolu ay manquement yu si am mhm. yéen kaay gi le quotidien ci loolu la xëy dellusiwaat euh, source lam ñu jukkil yéen kaay gi source ne moom juge euh, Samba Saba si Faye ma ngay wax lan moo tax mu jël décision kon daal di dellusiwaat Ousmane ko jëm ci élection présidentielle yi noonu la ko yéen kay gi xëy fësale ndax dafa jàpp ne gars yi ñu suba daanaka respecté wuñu article bi mu soxal code pénal muy article euh, am na daal lu mu ci wax noonu la ko yéen kay gi suuf saa xëy fësale yéen kay geneen laas laas yéen kay ne Ousmane Sonko euh, ak maanaam ëllëgam ci wàllu politique jamono ji mu ngi ci loxol kii di cour suprême dontele euh, bi jàllul waaye ba nga xam la ñuy xaar te mooy dossier bi dox ci diggante ma kii di Mame Mbaye Niang Euh, moom mii nag Ousmane Sonko defoon recours ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru weeru octobre bi. Mm-hmm. Euh, ci la waa Cour suprême war a àddu tax yéen kaay gi ne daal ëllëg Ousmane Sonko ci élection présidentielle di ñëw. Mm-hmm. mu ngi ci loxol waa Cour suprême. maa ngi ko euh, critique. waaye yéen kaay gi di critique loolu xëy dellusiwaat wax ci li nga xam moo daanaka. mooy dernier acte bi nga xam ne Ousmane Sonko war na koy posé ngir war bokk ci élection présidentielle di te moo di coow li dox ci diggante mag Mame Mbaye Niang defoon na nag ab recours recours bi nag suprême mhm. daañu ci fas yéene àdduna ñaar fukk fan juróom-benn ci weeru octobre noonu la ko yéen kaay giri critique xëy fësal Sud Quotidien fa mu taxaw assemblée nationale donte la sax taxawal nañu bureau ba waaye bureau ba nag dafa nekk ci sursis li ko waral moo di dafa am ñoo xam leen a tànn def leen ay ñi ay vice président te fekk na ñoo président Macky tànn leen def leen ñu doon ay ministre gouvernement bi la mhm. waaye jàpp ne kon fii la kee fan yu néew gouvernement bu dañ ko sans maanaam bureau bi dañ ko xoolaat noonu la ko yéen kaay giri sud quotidien xëy Dakar Times fu mu taxaw Dakar Times dafa xëy amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci ñi nga xam ñoo fi ne daaneel ay nguur rek di ay militaire yéen kaay gi ne li nag du buleet yàgg na am fi ci biir réew mi waaye tax yéen kaay gi bëgg a xam euh, ñoom euh, militaires yooyu lan lañ defal seen réew noonu la ko yéen kaay gi Dakar Times xëy fa euh, stade moom fu mu jëm stade yéen kaay ñu bëri dañ doon wax ne Sadio Mané mënul penalty hmm. waaye gis nañ daal 2021 ba tey ma nga cay góorgóorlu ndax gis nañ ci fukki tentative ak benn yoo xam def na ko fukki daanaka réussir na ko noonu la ko yéen kaay ba ñu ko laajee nag moom Sadio Mané nee na bokk na ci li mu gën a waajal boppam moo di penalty ci biir këlëbam noonu la ko yéene kaay euh, suñu lamb ñu mu géewal ñu mu wax ci combat gi war a dox ci diggante Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 ñu ngi ko jàpp ni ki fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre Siteu nag ma ngay def soowma nee na su fekkente ne Lac de Guiers attaqué na ko ba combat bi dana dana gaaw mm-hmm. waaye Lac de Guiers numéro 2 nee na daal moom Siteu mi amul fit dëggal boppam jàkkaarloog moom mm-hmm. kon boobaa luy métti dina jóge si si ci moom dana am mm-hmm. loolu lu métti si moom mm-hmm. wax aussi si combat Modou Lo ak Ama bi nga xam ñu ngi koy waajal wax aussi si combat Tapha ak kii di Eumeu Sène ñoom daal kenn ku ne yaa ngi ay kàddu di artu sa maanaam di lépp kon mu ngi ci yéen kaay gii di sunu laam Abdoulaye Mangog ngi lay jaajëfal Seydina Omar Ba ci faram-fàcce li gën a fës ci xët yi incha allah daañu ci dikkat na mu gën a yaatoo di la jaajëfal